de maturité Bimana, Ousmane Sonko magne politiquement ci mbirum politique Ousmane Sonko ba élection yi jeexee ba légui ñu koy doga a dégg mu wo taskatu xibaar yi def ben discours yëkëti ay kàddu waaye li ñuy rafetlu mooy gisuñu fenn fo xamné dafa ne na nit ñi génn xex ak Macky Sall na nit ñi génn ñu taal dëkk ba nañ dem palais ba parce que kat woowoon na fi Pape Alé Niang di wax wax yu mel noonu naan dañuy exploser palais waaye tey moom dañoo gis daal mu gërëm ñu ko wateel wax ne dina dem seeti leen dina dem diaspora seeti leen waaye ñun li ñuy rafetlu rek mooy gisuñu fenn foo xam ne dafa wax xale yi génn leen xeex leen bañ leen waaye nag bu ñu sañoon dina woo président Macky Sall mu félicité ko waaye même bu fekkee ne sax félicité wu ko waxul kenn xeex leen. waxul kenn nañu taal dëkk bi waaye nag li ma si jaaxal mooy ba muy jeex ñaari laaj rek la may benn journaliste bu nekk France est-ce que du France Presse laaj bi ñu ko jëkk laaj mooy 94 milliards ndax bu leen fàtte ne élection yi jeex na léegi Ousmane Sonko lan lay def ce que dafay dem assemblée wuyu ji ndax dafa am benn commission d'enquête loolu la ko waaj wax moom mu ne loolu sax waruma ci tontu waaye man wax ak naa procureur daal dafa mel ne dafa bëgg wax ne du wuyu ji assemblée man nag li ñu daal bu ñu sañoon Ousmane Sonko affaire 94 milliards yi daf ci set wicc ndax takkal nit tamit dafa neexul Mamour Diallo bi nga wax dafa sàcc 94 milliards ñun bu ñu sañoon comme élection yi jeex na li mu waroon def xëy na mooy mu ne ah xëy na damaa juumoon ci ni ma waxee ci 94 milliards yi bu fekkee ne amoo ay firnde da nga war a baalu nga setal deru nit ki waaye nit ki nag boo setalul deram léegi nan lay def Mamour Diallo lan lay def il faut que mu porte te bu porte plainte Sonko mën na am problème mën nañ sax immunité parlementaire am maanaam mën nañ koo dàq dootul nekk député te loolu mën nañ ko ci tëj loolu mën na yàq carrière politique am